euh, la véritable mission euh, de vous amener à réfléchir sur le football de notre pays. Je dis souvent à mes amis, hein, et je suis très heureux aujourd'hui de retrouver euh, beaucoup de connaissances. Au fond, je connais tout le monde. Dans notre pays, tous ceux qui vouent de l'amour au football sont des parents sont des amis sont des militants d'une même cause. mbokki ñëwoon démb salaamaaleykum di am mbégte di jataay ak yéen ni ñu koy defee euh, ci waxtu wi tey nag émission bi ma wadd wàdd moo ko moom ma wàdd wàdd wuute na génn na àddina am na léegi ay at waaye xam ngeen bërki démb dañ ko doon tuddee ca dëkkam ca Ndar stade de football sportif yëpp daje fa ma wàdd wàdd ci football bi réveil de Saint-Louis pour tënk rek Barak de Saint-Louis entraîneur national directeur technique national nekk expert à la Confédération africaine de football et à la FIFA mu nekk nag sénégalais bu nga xamee ni ku ràññeeku la woon ci àddina bi stade ba ñu ko tuddee ca Ndar ku ko dégg ci àddina bi di nga ni Sénégal ak Ndar day xam nañu li ñu def ci Mawade Mawade bu dëddoo àddina ma war waxtaane ko ma ni ay xaritam a ngi fi am na ci sax ci ñoo xamee ni ñii rakkam lañu ñii doomam lañu xam ko trop ma ni diggante Jo mu nekkoon adjoint en équipe nationale ak Doudou seen ku fa dem dara du la réer ci Mawade Wade Doudou Sène bi nga xame ni dafa teel ànd ak Mawade Wade moom laa indi tey jii ci ñëwoon démb Doudou seen di inspecteur de la jeunesse et des sports nekk fii secretaire général bu fédération sénégalaise de football nekk fii directeur administratif de la fédération sénégalaise de football occupé fii ay post de responsabilité pendant longtemps ci instance sportive yu Sénégal euh, foofu sax laay ubbee émission bi du seen ci boppam jébbal leen boppam ma bàyyi ko mu nuyoo ba pare duudu wax leen poste yi mu occupé poste de responsabilité yi mu occupé ci sport bi fi mu jaar balaa ñoo dugal ci mawaad bi nga xam ne tey ji moo ko fi indi Doudou salaamaaleykum ma bàyyi la nga jàmmanteeg euh, téléspectateur sant di la gërëm Sène ci turu xaritu mawaad ak njabootu mawaad jërëjëf Sène ndax keroog bi demee Ndar am na ko waxoon suñ tur ak suñ sant ak ni ko Jo di waxee ak suñu jukko mhm. muy Badara Mamaya Sène mhm. Badara Mamaya Sène nag mawaad yàgg nañu parce que Mame Maya ak Jojo bi itam yàgg nañu moo tax ca jamono yële bi ñu def dixième anniversaire de sem am na benn article bu génn ci journaux yi journaux sportifs yi nekk fii muy stade ak euh, waa sport mhm. pour won ci jaar-jaaru Mawade alors bi ñu demee Ndar itam njabootu Mawade ñoo ne Badara euh, Mame Maya du fi nekk ñuy wax fi leen seen bàyyi euh, féete woon. Mhm. Badara Mamaye seen féete na leen sax est-ce que kon nag ñun tam ñu ngi koy gërëm di ko sant. Mhm. te cër boobu ñu ko jox daf ko mat. Mhm. moo tax ñu jox ko ko. man nag euh, Mawade yàgg naa ko xam parce que amaguma juróom-ñaar fukki daanaka mais bi ma xamee Mawade ak léegi am na juróom-benn fukki am est-ce ndax boobu maa ngi nekk école primaire di jàng. donc bi ngay ànd ak Mawade xale bu tuuti nga teel nga ànd ak Mawade te bi ngay ànd ak Mawade xale bu tuuti nga. waaw xam nga man dafa école Casanak laa jàngee la ñu doon ko wax école rural léegi école Ibrahima Diouf la tudd muy euh, Ibrahima Diouf moo nekkoon nekkoon na maire Fatick mooy papa yi Madiène Diouf. Mhm. école Casanak laa jàngee alors sama maam bi ma yaroon jàngalekat la woon dafa ma dénkaane woon ci école man dem dem naa école sax waruma dugg bu dénkaane ma ci école bi maa am ñeenti at ak yooyu ñu dénkaane ma may avancé ba baat di ñëw. alors euh, boo demee récréation bu ma. waxee woon quelle année loolu. c' était en 55 56. 1955 waaw ba bi ma duggee école c' était avant. bi ma waat di ñëwee c' était en 55 56. bi ma waat di ñëwee à Kaolack à Kaolack. alors Madické Wade moo nekkoon sama maître Madické Wade ak waat dañ nekkoon PA yi. yu leen bund xataal yóbbu leen foofu yóbbu leen un peu partout au Sénégal moo tax Mawade xam nga jógee na foofu yóbbu ko Kolda yóbbu nañ ko Ziguinchor yóbbu nañ ko Sindoon fu nekk wër na ko quoi avant mu euh, damay tiit alors ñu wax ne ñu dem ci kër gën a sa maam kii dafa ragal Mawade mu ne ah kon nag dama ko koy dénk léegi Mawade mu ngi nekkoon bi de Kaolack moom ak ma Madické Wade waaw man maa leen noon raxasal sax seen i godaas bu ñëwee ci kër ga yooyu alors ñu ñëw ci kër ga bu ñëwee ma waat di ma jàngal moo nekkoon sama répétiteur ma dikkee moo nekkoon sama maître ma waat di sama répétiteur la nekkoon. est-ce que donc moo ma doon bu may nafar moo may nafarloo te lu ma nafarloo ma xam que parce que dama ko <laughs> alors bu may yibbi ci kër ga. alors euh, je me euh, vraiment j'étais encore enfant mais dafa amoon réchaud à pétrole yooyu ñu doon pompé. waaw daf koy teg ceeb bi ceeb euh, bu ceeb bu nga kër mère Aminata ñoom Mame Less Dia. waaw Mame Less Dia journaliste. waaw ak Baye Abdou foofu la dëkkoon. waaw ca Sànce alors bu ñëwee rek après bu jógee entraînement ma raxas leen daal mu ne ma lekkal ma nekk mais. parce que boobu temps ma wax football ak Kaolack. waaw ak réveil de Kaolack la ma euh, dikkee. waaw alors bu ñëwee man tam ma nekk monsieur suur naa de mu ne comment lekkal ma ne nga de kii damay lekk ba vraiment. lekk par force lekk par force la bu ma ñibbi d'ailleurs maa ngi fàttaliku bu ma ñibbi sax dafa ma daan jox euh, des pièces yooyu ay deux francs yooyu boobu daan gerte caaf ñaari ñaari boo ko jëndee da lekk ba suur ñaar fitini caaf caaf laa doon jënd bu ma daan yegg ci kër ga ñaar fitini xam nga léegi jëriñatul dara dara alors loolu la bu ma nekkee ci kër ga après moom mu di ma jàngal et Mawad am na leen loo xam ne waxuñ ko ci moom hmm. parce que Mawad le programme français bi hmm. na loo xam ne du ko ci doon boo ko waxee mën ta mu ne histoire de France li may enseigné nos ancêtres les Gaulois te man moo mes ancêtres n'ont jamais été des <laughs> loolu moo tax bu euh, vraiment dafa nekkoon un maître cent pour cent c'est-à-dire cent pour bi xam nga lan la mooy bu présenté entrée en sixième ñëppay admis est-ce que CEP ñëppay loolu sax am na benn témoignage boo xam ne am na kilifa gu ko def ci dëkk bi bu réew mi bu yàggul mm-hmm. muy Mansour Sy Djamil Mansour Sy Djamil yëg naa ni élève am la woon élève la woon à saint ndax Mansour Sy Djamil nee na il est devenu banquier à cause de alors moom moo nekkoon kii non euh, moo nekkoon euh, moo nekkoon élève Mabate à Saint-Louis alors bi nekkee élève Mabate à Saint-Louis euh, il se trouve que bu ñu waree def kii rek bu ñu waree def histoire de français yooyu mu jàngal ko mathématique alors muy mu mathématique ba tàmm ak yooyu ci la nekkee banquier moom sax ci boppam wax na ko quoi mm-hmm. am na ñeneen ñoo xam ne jàngal na la ñu nekk seel yi parce que Ibrahima Thioy bi nekk sur association des inspecteurs éducateurs de la jeunesse et des sports mm-hmm. Ibrahima Thioy nekkoon na directeur du jàngal na ko mm-hmm. jàngal na aussi euh, comment dirais je Seydou bi nekkoon ministre des sports jàngal na leen am na ñu bari jàngal ay ay euh, vieux xam nga vieux mooy Pape am na élèves yu bari yu nekk seen am na ñu nekkoon keroog ca tribune ba aussi mënu ma décider ñoom daal way way alors footballeur Mawade dañu gimmi Ndar Réveil de Saint-Louis Barak de Saint-Louis équipe nationale Sénégal mook Jeux ak Lamine Diack yóbbu ñu à notre deuxième CAN en nekk fi directeur technique national puis Mawade Issa Ayatou nee président de la CAF nee na ma waat da ko def euh, président CAF naka Doudou. waaw loolu dama ci am lu ma leer euh, affaire u équipe 68 sax ba léegi ma waat boo doo wax ak moom bu lay wax équipe bu 68 dafay mel ni vraiment euh, daf ko tibb ci xolam. xam nga passion bi am ci football bala mu la koy wax mu di la wax ay luy lu lu jong et cetera loolu bu lay wax loolu. ak mm. ñoom Demba Coy. bu lay wax yooyu da ngay xam ne kii li muy. li muy wax équipe am la woon kooku équipe woon kooku équipe dëgg la woon. Mm-hmm. bon Issa Ayatou. am na ay jataay yoo xam ne defoon nañ am na benn symposium bu amoon Khartoum ma waroon fa dem pour euh, parler de des entre l' état et les fédérations parce que peut-être sama profil moo taxaw ñu demandé ma dem ci symposium boobu symposium instructeur de de la CAF la woon. oui ma war fa dem wax ci affaire relation état fédération xam nga ba léegi sax da ngay dégg relation état fédération di mu demee. waaw bon affaire délégation de pouvoir mun ci dugal nekk. oui euh, dem ma demoon Khartoum bi ma demee Khartoum jékki-jékki ci tali bi ma dégg ku naan. duudu duudu duudu après ma xool ma ne ah fii kat dama fi xam ne wax duudu ma ngay monsieur ma ne ah ma ñëw Issa Ayatou ñëw taxaw ak man dama kii sama soxna la ma ne ko ah mu nga kii li tax ma dina ko présenté kii xariti Mawade la mhm. niti Mawade la mhm. parce que benn affaire daf ci am aussi Mawade boo waxee moom rek mu ne administration ko wax rek moom te mu ne j'ai Doudou à Rufisque la il est meilleur le meilleur <laughs> ndeysaan comité directeur BRAC dugg naa ci te fekkewu ma réunion assemblée ba à Saint-Louis ndaxte boobu temps instituteur la woon de ko nekk Tëngéej ma waad moo ne dama koy proposé benn xale bu tudd Doudou Sène bu nekk Tëngéej mhm. il va faire du chemin dans le sport mhm. loolu ma waa doxoon ci jamono yooyu ci laa duggee comité directeur pour en revenir a à Issayatou mu présenté ma jabaram mais pourquoi ma di la présenter sama sama parce que Mawade li ma defal ci àddina kenn defaluma ko bu ma taxawee fii tey Mawade yàlla ci moom la ko jaarale mhm. Isaïe wax loolu devant témoin di ñaar peeg ñu wër wax loolu. Mhm. kon nag loolu xam naa dëgg la ci moom. te affaire bi ñu ko defal fii à Saint-Louis. woo na Badara Sène naka fa taxawal parce que affaire bi ni mu jàmp moo tax jógul. waaw mais bu fekkee ne loolu kenn du ko fa jiitu. ndax Mawade bi mu feebaree ànd nañoo moom dem Saint-Louis mu loué avion ñëw dem Saint-Louis seeti Mawade. waaw bi Mawade gaañoo aussi il a fait une délégation avec la CAF ñëw kii parce que ñun en 88 bi Isaïe Tout du Sénégal c' était pas Isaïe Tout c' était Ekoué a servi au Sénégal. Ekoué le mais Issa Mawade dafa ne moom kii mooy candidat moom la woteel contre le Sénégal. il a dit que contre le, le, le candidat du Sénégal. il était a mené une campagne. parce que Mawade aussi am na benn affaire bu ci am boo xam ne xamul leen ko booru Afrique du Sud le sud de l' Afrique je veux dire quoi. waaw je du Sud. ay Namibie ay ay ay ay ay kii Zimbabwe. ay Angola yooyu quoi Afrique du Sud yooyu. Mawade il a des yoo xam ne kenn xam nu mu demee xam naa nag c' était

am na fa incident yu fa amoon ci ay élection moom mag ma dikk waat ils ont joué un rôle boo xam ne ku dul jàmbaar du ko mën a def. wax nga dëgg loolu la woon à ah, Saint-Louis loolu dama ko fekkee j'étais élève au lycée Faidherbe. wax fekkee naa ko gis naa ko. ma wàdd wàdd jaar-jaaram yóbbu na ko dans le monde yóbbu na ko en Afrique. fii photo bi Japon la mi ngi nii ma wàdd deuxième ci seen gauche tout à l'heure Doudou Sène mi ngay waxtaan fi mu jaar ak Issa Hayatou Issa Hayatou moo nekk noonu ci digg bi euh, quatrième à partir de la gauche. fii nag ñu ànd fii ak Bobby Charlton Bobby Charlton moo nekk nële bas baissé maillot bu bleu euh, culotte bu blanche c'était le capitaine de l'équipe d'Angleterre bi Angleterre di gagné euh, coupe du monde kon ñii la daan langal di waxtaan ak ñoom lu yóbbu Afrique dans le monde fii mi ngi nii au Togo di fi diriger stage ma wax da xam nañ ko biir Afrique xam nañ ko dans le monde Togo ñoom ñoo ko daan faral di réclamer léeg-léeg ci ay formation d'entraîneur yu nga xamee ni ay togole lañu kon mi ngi neeti ni ci stade Gnassingbé euh, Eyadema ci ay entraîneur togole di fa diriger ay stage euh, Doudou bi nga ànd ak Mawade yàgg na man gis naa la ci euh, mën naa ni tuddee ni ci jamono mm-hmm. ci soq Mawade yi nga woon mm-hmm. moo tax bi ma nee Mawade dem na mm-hmm. Ndar Sénégal tuddee ko stade Mawade Wade ñëpp ni gongo Saint-Louisien yi ma ànd ak Malick Gakou ñu teel ma ni Ablaye stade bi léegi mu pare bëgg nañu bu buñ koy inauguré ñu tuddee ko ma wadd wadd état bi félicitation ànd ci loolu yow tey jii yàgg jojo mënoon ngeen bind livre ci ma wadd lan moo la gën a marqué ci ma bi ngeen andee boobu ba léegi ah tey jii léegi nga am 70 ans yàgg ma wadd ànd ngeen 60 ans mhm. li ma gën a marqué ci ma wadd mooy bon xam nga man euh, état élève ki laa ko gën a gën a gën a gën a xam ndax tey c'était le brillant pédagogue mais nit ñi Mawade lu sportif la ci xam Mawade c'était un passionné bu lay waxal ci affaire football surtout encore aujourd'hui mhm. euh, damay rappelé wu tey bi may ñëw sax am na ñaar ñu ma woo Douglas que tu connais. qui a Douglas qui a rêvé au rêve j'ai également à kii là Louis Camara. Mhm. Mawade bu la doon wax ci Louis Camara dafay mel rek Louis Camara rek nekk footballeur dans le monde. Mhm. ndax bu lay entraîné boo dem dama daa dem di yooyu. boo gisee joueur bi sëgg ci bal bi monte mu ne mais Doudou celui-là il n'a jamais vu jouer lu lu Gomis il te met la balle dans les pieds bien dans la la trajectoire de ta ou bien pour que tu de la tête parce que dafay xool li muy def kii nag bu sëggee ci bal bi du mun a gis. waaye mu ne luy Camara am na temps boo xam ne peut-être c'était l'un des meilleurs joueurs du monde dafa nekkoon Sénégal rek moo tax xëy na sax télévision bu meloon nii. Mm-hmm. xëy na dina gën a feeñ. waay ay du jong ak quoi bu lay wax ci loolu. d'ailleurs Mamath dafa am sax affaire bu mooy wax ci ci jikkoom ak yooyu dafa la naan attaquant buy taxaw di xaar soutien taxaw devant un défenseur du ko kii il te si deux exemples type te nekkuñu woon barak nekkuñu woon rewe parce que man nekk naa moom barak nekk naa moom rewe mhm. du jong la lay wax ak euh, euh, Demba Coy Doudou Diong Demba Coy Demba Coy ci ay attaquant préféré Mawade mu ne la première qualité d'un attaquant c'est le culot c'est le c'est le culot le culot waaw ku taxaw sa kanam rek nga ne mun naa ko romb te nee na loolu la dul jong meloon noonu la kii am na koo xam ne ndeysaan yàlla dafa def mu gën teel a génn àdduna ma waat bëggoon na ko trop muy Matar Niang Matar Niang waaw ah, Matar Niang aussi xam nga waxuñ ci moom mais ça a été un très grand footballeur xam nga Mawade entraîne na fi équipe africaine ah. mini coupe du monde comme on l'a dit oui oui il y avait Louis Gomis qui était dans l'équipe il y avait Edouard Niakadia Edouard Niakadia ainsi de suite Doudou Sène tudd euh, ñoom Demba Thioye ak ñoom euh, Doudou ñoom Matar Euh, tudd fii eh, ñoom euh, Louis Camara ak Louis Gomis ak ñooñule yaat ma jug te bërki démb ca Ndar ca ba ñu koy tuddee stade ba ah, bu fekkee ni war nañ waxtaan ak doomu Ndar yaat ma jug ci ñooñu la réveil de Saint-Louis équipe nationale 1968 yaat ma jug suñu reporter yi ba ñu demee Ndar déglu nañ ko ci ma wàddu wàdd man ay ñoom Yërim Diagne tous les internationaux yi nekkoon ci léegi ñëpp Mawade leen formé mais Mawade kenn mënu la wax qualité en tant que entraîneur mental bi mu mënoon jox euh, joueur il n'avait pas aussi passion bi mu amoon dans dans dans le football mais yow oh, boo ko xamoon doo nangu sa doom wala sa papa wala sa nijaay mel na comme Mawade ci football c'était un passionné. yat ma jugo ngoog international ah dès 1963 dem ak Sénégal ba 1968 nekk fi capitaine équipe nationale du Sénégal on est toujours à Saint-Louis on y reste Doudou Diène avec qui Mawade a milité au Barak de Saint-Louis à l'époque Doudou Diène était déjà le vice-président du Barak de Saint-Louis il nous parle de l'homme Mawade qu'il a connu depuis sa grande famille saint-louisienne sa maman Euh, à l'époque de la colonisation était une maîtresse coranique dafa daan jàngale alxuraan yaayam et Mawade a grandi à l'école coranique de sa propre mère et on voit déjà euh, l'éducation qu'il a reçue et tout en étant à l'école coranique de sa mère il était aussi à l'école française Et donc, il a reçu ces deux, deux, deux, deux éducations combinées qui faisait qu'il était ce produit dont parlait Senghor, c'est-à-dire qu'il était enraciné dans ses propres valeurs tout en étant ouvert au souffle fécondant de l'extérieur. Et c'est ça qui lui avait permis non seulement de pouvoir vivre à l'intérieur de sa, sa propre société en respectant les traditions, mais aussi euh, à être dans la société saint-louisienne qui était une euh, société extrêmement métissée sur le plan intellectuel. Et c'est ça qui faisait que Mawad avait un fort caractère. Je suis venu au football par la lutte. passionnée pour mon peuple, pour les peuples d'Afrique. Euh, dafa dépassé cadre sport comme je le dis. dafa mhm. dépassé cadre politique gis nga man miy wax ak mhm. fu ma mus nekk ci àddina maa ñëw na fekk ma fa. est dafa daan ànd ak Bamour wala mu ànd ak Youssou Touré mu ànd ak Cheikh Diop. Mhm. am naa doom boo xam ne sax il est la communication aujourd'hui keroog Mawade moo ko ñaanal c'est un grand polémiste. doomu doomu Cheikh la xam naa ne kooku am na yoo xam ne ci Mawade la ko kii. am na keneen koo xam ne ndeysaan Mohamed la tudd. Rasoul lañ ko doon wooyee bu Mawade doon ñëw boobu temps il parlait à peine dafay taxaw ne ma par exemple mu ne ma football. Mhm. parce que quand Mama devenait à la maison moom il entendait que football. Mhm. bu waxee Mama Mama football rek lay wax mu ne football. ñëw na. waaw football ñëw na dafay taxaw ci balcon bi di xool boo toogee rek ma ne lan la mu ne football booy mooy moo waat di ñëw na moo waat di ñëw na waaw. ndeysaan. alors euh, te fu ma dëkk rek fu ma dëkk rek mos na ma fekk. oui oui te ma waat il me faisait une confiance boo xam ne yàlla na ko yàlla fay. amin amin amin seen. Euh, stade bi ñu ko tuddee. Uh-huh. ca Ndar. Uh-huh. Euh, na leen. waaw stade bi xam nga comme ni nga ko waxee Malick Gakou nekkoon na fi waxtaan na ci après kii ñëw moo ko mottali. monsieur Matar Ba. mataar Ba moo ci tombé. moo ci tombee te tombé ñu ne moo waral ay gaaf Matar Ba sax man je ne le connais pas personnellement mais am naa ñoo xam ne xam naa ko te am na loo xam ne daf koy wax ci ñun. Mhm. Euh, lu rafet la. wax nga te loolu dama ko ciy gërëm. Mhm. Matar Ba bi mu ñëwee affaire bi xam naa ne c'était te peu précipité loolu moo tax xëy na kii yooyu quoi mais stade bi. Euh, xëy na mun na jël mun nañ ko joxoon beneen dimension. waaw waxtaan ngeen sax ci kii beeg yooyu. mais lii c'est commencement mun na continuer dégg naa la keroog sax yow Golbert ngeen ci wax waaw ci rajo beeg yooyu Golbert te wax na ci à Saint-Louis stade bi pareegul pareegul jeexagul nañ ko waaw c'est ça mais pareegul am na leneen lu ci des parce que defe naa mun nañ fi def stade ba nga xam ne bu buñ nee Sénégal comme li ko arrivé woon yàlla tere at arrivé que ñu mën a joué ji stade coupe d'Afrique mun na fi bu fekkee day fee organiser une compétition. li tax stade bi parewul moo di répondre gul au nord. au nord waaw parewul tey pour accueillir match international. voilà c'est ça et comme Mawade était international. Uh-huh. bu ñu koy tuddee bu am jëmm. loolu wax dëgg gu wér la parce que waxtaan nañ ci keroog sax ACL xam nga dëgg naa la ci rajo bi ngay wax yu bari ci affaire boobu. war nañ ko defar beneen tribune de l'autre côté. xam ne moo ko requises oui, pour oui. jouer des matchs Par exemple, phase finale de la Coupe d'Afrique. Exact. Que ça soit chez les, chez les, chez mhm. ou bien même euh, canne, pour ñu mag yi. Mhm. ou bien ay pour football féminin. am na ñu mën sax culture bi rien que culture ba parce que da toll da romb ca mbedd ma. di seen aire bi. Ah, man xam nga man law da laa dëkkoon. waaw sama foofu la dëkkoon man biir naa foofu bu baax. ah mu ndax dañ daan dem fële ci bu baax man dem naa ànd naag sama njaboot euh, euh, am na waa tëgee ju fa yu ma fa àndoon sax. Mhm. Euh, am na benn xarit bu nekkoon Bordeaux Claude Pereira bëggoon nañu frère waay mais noonu la demee. Ibrahima Ndiaye jóge na jóge na ba tëgee ànd ak ay doomam. ndax nee na affaire Mawad ko bañ a fekkee. Mawad xëy na bu lii am su ko bettul woon. ku waroon bind la Mawad. waroon na bind te comme bindul. Mhm. léegi yàgg Joe Diop war ngeen bind ci Mawad. waaw man xam naa ne. am na xam nga laay am na jamono yoo xam ne am na sama benn xarit bu nekk bu nekk tëggee sax nee na téléphoné la loo livre yaa <laughs> man nag euh, damay bind nag lu bari ah d'accord euh, boo gisee sax damay bind régulièrement dans la presse euh, ay articles yoo xam ne occasion bi moo tax ma bind yooyu quoi te mun naa bind ak show mais ma waat ak show xam nga ma waat dafa ma naan duudu prends note ma jël bind bind bind bind bind après loolu la doon demee. oui te am naa yu bari yoo xam ne ay cassette am ak yooyu mun nañ ko génnewaat. parce que am na ay documents yu wóor a wóor yu wóor ci Mawade yoo xam ne. mun nañ bind ci moom incha allah man ak Jo ak Badara xëy na dinañ ci réfléchir ak yeneen xaritam. du du xam nga lu ma frappé ci Mawade. ses adversaires à Saint-Louis. ses adversaires de club. étaient mm-hmm. ses amis. Mm-hmm. parce que dama gis benn triangle. Mm-hmm. Mawade entraîneur du réveil. Euh. Moussa Diallo entraîneur de l'espoir de Saint-Louis. Euh. Douzaine entraîneur de la Saint-Louisienne ñett di échanger di waxtaan ba ci ay adversaire waaw Mawad nag moom ak Zoe Diop xam nga man bu ma daan bu buñ ah, daan ànd ak man bu ñëwee ba guddeeg yooyu hmm. bu nekkee quelque part damay jóge foofu bàyyi la dem tëddi parce que doo doo ba bër set dañuy wax ñoom tant qu'il parle de football doo nelaw wax nga dëgg loolu la affaire bi demee moo tax euh, euh, keroog bi ma jógee Saint-Louis bi ma fay wàññeeku Malick Diallo laa dajal Malick Diallo Malick Diallo bu Linguère Linguère yaa wax ci moom te ma Mawad bu lay wax sage du placement placement déplacement déplacement bu lay wax. Hmm. l' exemple type qu'il te donne que Mawade entraîneur Linguère en état appartenant au Braga lu ma leer la ca jamono moo hmm. doon. Gia jaraafu Ndakaaru. xam nga lu koy indi. Hmm? rawee mi jóge ci Saint-Louisienne. voilà loolu moo koy indi. waaw mooy ah, a teel <laughs> jógee kër ma waat ma ne dañuy wax ci télé bi benn affaire u jàllale waaw jooju la tudd mu ne xaysi la tuddoon waaw wax nga dëgg dama gis lii Ronaldo di def effectivement ci Ousseynou Samb laa ko jëkk def laa ko jëkk gis te comme Ousseynou Samb dañ daan dégg muy muy traîner benn benn sobriquet uh-huh. xaw ma sobriquet lañ koy wax xaysi xaysi waaw ma ni kon boog uh-huh. parce que Samb Ousseynou la faisait moom mu tuddee ka naka jàllale jàllale waaw <laughs> loolu la ma wax keroog ndeysaan laajoo mu leen démb dama maa ngi dafa teel complet c'est ça effectivement am na lu ma jaaxal ci yow uh-huh. euh, Euh, surtout Alaaji Maawa Seen di nga doon di doomu Gendar uh-huh. euh, lu la def Rufisque quoi waaw Rufisque xam nga am na benn bés boo xam ne sax dañ ma doon interviewé ci rajo bi dañ ma doon interviewé ci rajo parce que dañ bindoon ne euh, les Rufisquois se sont emparés du football du football sénégalais <laughs> ñu cité ma man cité Badara Mamaya Sène cité Mbaye Ndoye ay xayaar xayaar ñang alors ñu interviewé ma le lendemain dans une journal de la place j'ai dit que mais moi je alors. Euh, je suis Saint-Louisien et Guet-Ndarien waaw grand sëriñ bi dégg ko grand sëriñ actuel dama aha Doudou yow bëgguloo bokk ñun ñun tam bëgguñu ci yow dara ma nekk déet men ak gañoo fi am man sama yaay moo dëkk Tëngéej sama yaay doo la sant man nag euh, sama côté yaay Tëngéej lañ dëkk njaween lañu jokkul njaween kenn nga ci xam xëy na muy docteur góor gi jaw alaaji ñaan jaw ak yooyu ñu tekk sama maam ah, sama côté sama côté maam sama côté yaay ah. Tëngéej la sama papa moo dëkk Guet Ndar. yëg naa aussi ni ma wàdd bi mu lay dugal ci bureau réveil. Mhm. gars yi dañ ñi mais y' a assez de Saint-Louisien ngi ci dugal Rufisque quoi mu leen déedéet surtout maa wasee la. waaw loolu la xam nga ma waat man fekk ma sax comité directeur bu BRAC bi ñu koy bi ñu fay dugal 72 la waaw alors mu proposé ñuy proposé mu ne Doudou Sène ñu ne waaw kuy Doudou Sène xamuñ ko ba nga bëgg dugal suñu équipe ba mu ne la bu nekk dama daan jógee ba ba kii dama daan jógee ba ba Tambacounda. Mhm. di seetaan si match rek. surtout mu ne kii nag bu nañ a dëkkaloo Ndar parce que c'était Alaaji Maawo la <laughs> loolu la Alaaji Maawo maa ngi dëkk ci pom ba ca Gendar. est-ce que waaw fi jàkkaarloog marché ba. est-ce que waaw foofu looy tëjee waxtaan wi nga xam ne tey ji yow sa bopp émission nga yow sa bopp ñëwoon démb nga. tey ma wàdd fi indi woon looy tëjee émission bi. li may tëjee émission bi laay mooy gërëm la di la sant euh, di gërëm euh, euh, soxna si parce que man dama nekk ci sport nekk ci langue beneen. waaw man ak Jojo ñu bokk ko ak ñeneen ñoo xam ne amoon nañ coon ba bari woon na coono amaat daa soxla sama xarit bu benn bakkan. oui oui dafay ñëw di fu ma moom ma waat fu ma dem fekk si nañ ma fa. xam nga loolu boo ko waxee rek am na lu jàll ci ginnaaw loo xam ne soxla soxlawul di wax mais yoo comprendre. waaw te dama ànd ak sama soxna ça va faire bientôt trente ans. waaw musuñu bañ dégg ci euh, musuñu kii ci dara. waaw yaayi xale yi. Mm-hmm. moo nekk ak man fële ci kër ga. jërëjëf ndax nee na ma moom. li mu fa nekkee sama yaay dafa ñëw ñaanal ko sama maam bi nga xam ne dafa yar ñaanal ko. Mm-hmm. moo tax euh, ñu ànd ànd bu rafet bu rafet. am na ay doom yoo xam ne aussi ay mag lañu. Mm-hmm. boo gisee sax may bañ di wax ci football yu bari am na ay jamono yoo xam ne dañ la ciy wax loo xam ne du noonu nga am ay doom yoo xam ne am nañ certaine responsabilité mag nañu te daf ko jarul quoi. Mm-hmm. te man xëy na lu baax laa bëgg ci football bi. keroog bi équipe bi dem di monastir bind naa leen benn bataaxal boo xam ne dama leen doon. Euh, li ñu wax yóbbal moom laa leen jox moo tax siit bi dinaa ko ci waa sport kon nag man sportif laa euh, une famille de sportifs waaw sportif on ah la quoi <laughs> keroog bi demee kër kër kër Mawade fekk fa Ndeye Jaxate son ak Abdou keroog dafa jooy ba jooyloo ba man jabaru Mawade non non Abdou hmm, son fils waaw hmm. ragaloon naa euh, émission bi jooye ci dese ci jeexe ci yooyu émission et je le comprends parce que moom euh, am na sax ñu koy wax ma dana wuyoo ma waaw référence à Mawade Wade ki ko joyloo di doomu Mawade Wade mooy tëj tey ji émission bi di Abdou Khader Wade suñu équipe bu reporter rek tamit ba ñu demee ca Ndar tàllal nañ ko micro léegi mooy kàddu papaam léegi mooy tànku papaam Abdou Khader Wade doomu ma Wade Wade mooy tëj émission bi. dem yëpp daf ko xeex pour le football sénégalais pour le football en particulier africain et de telle sorte que tey su amee lii dañ naan mérité na ko. je crois très sincèrement que le débat comme là devrait nous amener à appréhender correctement les problèmes techniques de notre football. j'en discute beaucoup avec des amis c'est le moment d'en discuter avec le peuple